bi am ngiig faal du 20 au 23 incha allah rabbi ñëw seet si sëriñ bi mu sànni ci ay kàddu waxtaan lan mooy maanaa ziyaara bi ak lan mooy temu ren ndax temu ren ñu ngi ko bëgg tudde at taqwa asaasul imaan wa diini c'est-à-dire nan ngay sukkandikoo ci wéetal yàlla bu mat sëkk ngir mën a joxe sa diine bu baax incha kon nag ñu ngi jox kàddu gi sëriñ Mouhamadul Mansour Sall mu sànni ci ay baat ngir yeen yeeñu ñun taalibe yi yee jullit yi yee mbokku Sénégal yëpp ak àdduna bi ñëw daw si làqu si tuub si waaw ziyaare bi noonu la ko sëñ bi sëñ Abba tërale woon itam moom mooy euh, daw làqu moom rek la moo sax man rek ak sama kër waa waa kër di ñuy daw at mu nekk dem ci benn barab fay ci àll ba dëkk bu ñoo ngi xam mooy dëkku cosaan bi daw fa ñeenti fan yoo xam ni ñu toog foofu duñ dem fenn duñu déglu rajo duñu jàng télévision duñu jàng journal rek di jaamu yàlla moo jàng alquran wala def ay dog wala waxtaan waxtaanu diine loolu la ko loolu la ko kile woon histoire bu rëy gi ci biir sax waaye ne temps bi du ko maye yàlla lay def muy dox ba léegi mu nekk ziyaare bu am solo boo xam ni gis nañ ci ay njëriñ te njëriñ li mooy suñ fa demee dañ fa am ñeenti fan ñu commencé alxames bii di ñëw incha allahu le 20 ba ba le 23 day nu kon alxames ajjuma samedi dimanche suñ fa ñëwee daal ci alxames suñu commencé ba dugg ci dëkk ba kenn du amati benn xalaat lu dul dem jàkk ji julli wasifa ñuy wasifa suñu paree ci wasifa mu nekk ñu def benn waxtaan waxtaan ci diini yi lay biir ju am jaam yi wan leen lax leen lan mooy yàlla lan mooy tawhid lan mooy lan mooy taqwa lan mooy imaan lan la nit di mën a góorgóorloo ba nan li nit mën a góorgóorloo ba rëcc ndax mbir mi xeex la mbir mi xam nga àddina bi da ngay rek ñoom dañuy def xeex bi mooy xeexu xaalis moo xeexu daraja xeexu kër déedéet àddina bi xeex bi dëgg mooy nga xeex fexe ba xam nan ngay rëccee ci seytaan yi kooku mooy xeex bu rëy bi waaw su ko defee ñun suñu waxtaan bu bopp yëpp suñu abbas dafa naan wax ni ma dëgg la zikar yi baax na loolu waaye dañ dañ ko def léegi yi ci gën a bare dañ ko def yeete dañ ko def euh, yéen ñi ñu xam lan mooy diini ba noppi di sikar tuuti gannaaw gi loolu la mu jëm wax lu jiitu mu faatu radiyallahu anhu ba mu ba nga xam ne loolu loolu mbir yi demee ci kattanu yàlla boobu ba tey ñu ngi ci nag mooy daal suñu fa demee daal dañ fi jàng ay kaamil kaamil yi nag commencé nañ ko ci muharram bi su muharram teroo rek ñu commencé kaamil yi suñu demee foofu nag àggale ko fa daaw ci kattanu yàlla def naa defoon nañ lu tuddee ci junne ñaari junne ak juróom-benn fukk ñaari junne ak juróom-benn fukk ci kaamil waaye defuñu ko ca place ba dañ ko commencé woon ci dëkk yëpp nag daar yëpp jàng kaamil euh, ci bés boobu ci dimanche la ñuy la ñuy àggali kaamil yëpp waaye xam nga ñaari junne ak lu topp ci kaamil suñu loolu baax na su yàlla nangoo benn rek mu doy rawatina ñu ngi ñaan yàlla yàlla nangu yëpp alors ci loolu nangu bi ñu ñaan yàlla yàlla su ko nangoo mu wis ak def ko ci Sénégal yëpp bañ a sax ci ñun def ko ci dëkk jullit yëpp. rawatina fi ñu toll ni euh, àddina bi dafa tas jullit ñi euh, dañ leen dañ leen teg dañ leen teg défense ni xale yi wax leen teg défense jullit euh, maa ngi kër benn waay buy def benn waxtaan mu ni mu ni ibtasim fa innaka anta muqaawim waaw salli fa innaka anta muqaawim dafa wax ne léegi léegi daal jot na léegi résistance jotu jamono résistance jot na waaye mu ni moom yow jullit bi foo tollu ngay ree sax résistance la waaw xam nga xam nga gaañu sooy mer sax na ne waa ji kontaanul moom nee na ngay kontaan foo toll nee na waxtu woo kontaan yéen yaa ngi résist yaa mu ni mu ngi di julli waxtu woo jàppee ba set dem julli ji rek yaa ngi résister xoolal boobu wax bu rafet waaw mu ni waxtu woo jógee di liggéey pour mën a dans sa doone te teg ko ci ñoo rek yaa ngi résister bul ñàkk fayda moom da ma jóg rek warul ñàkk fayda foo toll da nga war kontaan di ree nangam boole sa boobu ci àddina bi wan ni ci nga bokk mu nekk lu am solo et eh, eh, loolu daal loolu la mooy ziar bi ziar bi daal ci gàttal loolu rek la ñu fay waxtaanee nag ay thèmes yu am fayda la man li ma ci gën a waxtaanee foofu ci ci ziar bi mooy tawxiid tawxiid daal ñun moom la ñu jël muy suñu thème daaw ña nga fa waxtaanee woon tawbatu ila allah tuub daw jëm caa waaye soo tuubee daw jëm caa lay dem te xam luy wéetale yàlla du sotti waaw moo tax ren dañ ko def at tawxiid at tawxiid lan mooy lan mooy ilmu tawxiid lan mooy fexe wéetal yàlla lan mooy eh, bañ a bokkaale yàlla. lan mooy bokkaale euh, nan la ni mën def ba rëcc ba rëcc ci mooy temu bi moom lañ bëgg waxtaan incha allahu taala euh, tawxiid bi li tax ñu jël ko am lu tax euh, Sénégal jullit ñi ba léegi dégguñu mbir yi astafirullah wala ñu ci bari ñoo dégguñu mbir yi boog ndax yàlla loo ko jaamu jaamu te jox loo ko cëram soxlootu sa jaamu. Mm-hmm. waaw yàlla loo ko jaamu jaamu. cëru yàlla nag mooy li nga xam ne moo ko moom te mooy moom moo fi moo fi moo fi ñemee bokkonte yàlla ci wéet. ana kan moo fi mën a toog ay million yi d'années ay milliards wala benn weer sax te do do do duñu la dimbale ci loo lekk duñu la dimbale ci lool naan ci loo sol yow yow kenn koot toog un mois yow kenn koot ci benn néeg sëñ bi suñu ñëwaatee fekk la soppeeku raw ñu teel a ñaari weet ci benn place yëngatuwoo sëñ bi boo tax weet yàlla rek moo ko moom li mu moom dañ ko delloo te ma huwa allahu alwahid alwahid qul huwa allahu ahad xoolal qul huwa allahu ahad xam nga loolu dañ ko seetluwul waaye yàlla nee man ahad la waxu waaxid sa ahad xam nga soo nee rek amatul amatul waaxid mooy l'unique mooy koo xam ni amul ñaar soo nee waaxid sa mën nga waaxid isnayni un deux trois un deux trois la la waaxid qul huwa allahu ahad mooy man man unique la amum amuma amuma jotewu mag yéen dara jox leen ma sama cër bu leen ma boole kenn ñu ngi gis ni Sénégal dëkk bu yéeme la waa dëkk ñu ragal yàlla lañ ñu bëgg ragal yàlla lañu Sénégal Sénégal ma gisuma ci àddina bi nii ñu gën a bëgg ragal yàlla Sénégal waaye est-ce que xam nañ noonu la ñu ragal yàlla kooku mooy problème moom la ñuy posé jaawale bi jaawale boobu moom lu ñu dindi Sénégal moom xam naa ne ku ku leen dimbale ba ñu bàyyi jaawale ñooy gën ci àddina bi jaawale bi mooy moom moom la sëñ Abbas daan wax fu mu toll naan Mansour hmm, yéen da ngeen def ni jàng ngeen dara jàng ngeen waa ne yeewoogu leen si awa daal loo xam ne ni Sénégal yi nit ñi dañ demee jàng nañu waaye dañu jàng alphabet A B C D ba ba nekk ingénieur wala professeur ne na kooku jàng wa waaye dese nga ñoroo yeewoo ko loolu la ko daan déggee mu ne arab nga jàng alifun baun taun saun ba nekk kàng ay docteur te jàng nga ni ay moo nii rek ci langue dañuy parler mais yeewoo ko alors ñu ko asib ah, bi lan mu ni yeewu de ñaar la ñaar mo yeewu da ngay fexe ba doo jaawale da ngay fexe ba doo jaxasi waaye ñu ko si firil ñu ko mu ni fir iji mooy moom li mu ji li mu dégg fir iji xam nga ñun ku jàng affaire ABCD rek ñu ni fir ngay ji alifun baawun taaw ñu ne fir non non nee fir fir iji moom mooy nga xamee allahu jox ko place am xamee Seydina jox ko place am xamee sëñ jox ko place mu ni loolu mooy fir iji xam nga loolu fir iji bu wóor wax na dëgg parce que jàng yi ci des yëpp da nga koy fàtte ëllëg gis nga Reagan mas a nekk président États-Unis ci ñi gën a ñi gën a ràññeekul la bi mu dema màggat benn sët bi di faw moom ni ko ni ko ni ko président rek mu ko ma fu ma nekkee président mu ni ko man xamul sax luy pré luy pré ne nañ ko woote ñu laaj ba xam ndax sët bi dafa dof wala de moom ñu ko président xamatul lu xew xam nga boobu boobu boobu xam nga boobu fet iji am na fu mu yem man sëñ Abbas mu ni fere iji dëgg-dëgg mooy nga xam ne Allah jox ko place am jox jox ko li mu moom jox ko wa li li nga xam moom la mérité soo ko defee rek yaa nga jox Seydina Muhammad place am jox sëriñ bi place nga nga fere iji te xam nga kooku fere iji bu yéeme la wax alors mu ni nag yeewute mooy nga fexe ba yeewu ci seen àddina ba kenn du la nax te wax na dëgg yeewute bokk na ci nga yeewu ba kenn du la dofloo mu ni nag nga fexe aussi ba la yowal xiyaamati kenn du la nax parce que soo yeewoo fii aussi te fekk nax ne la ci àllaaxira sëñ bi yàqu nga te Sénégal fii ñu bari dañu yaakaar ni yeewu nañu mais soo seetee ci biir seen yeewute kenn du leen nax ci seen juróomi dërëm ak ñaari dërëm ak téeméeri dërëm kenn du leen ci nax seen wàllu yàlla c'est n'importe quoi nu mel baax na kooku nag erreur la moo tax sëñ Abass naan wax ni ki dégg mbir yi te yeewu mooy ku yeewu ba kenn du la nax fii ku yeewu ba kenn du la nax fale ñun ci démarche yooyu la leen waaw du nekk ñu démarche sax wut ay taalibe wala ay mboolo mais li ñu bëgg mooy fexe bas nit ñi yeewu jaamu yàlla jox yàlla cëram jox Seydina Muhammad cëram jox sëriñ si seen cër parce que sëriñ si aussi ci la ñu bokk ma déggee naan sëriñ si ma li waaye sëñ bàyyi leen waaye sëriñ si su doon ñoom ñu jëm sëñ suñ ñëw ñoom fu ñu jëm yow ti ma fi ñëwoon jóge jóge fi bàyyi jóge jóge fi taabi'u nay ñëw taabi'u taabi'u nay ñëw ñu jóge fi muy dox ba ñëw sëriñ see fi nekk ñoom ñoo fi bàyyi li fi nekk kenn mun leen kenn mun leen kenn mun leen bàyyi gannaaw di leen di ñaanal yàlla fayal ñu leen ñoom ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon di ñi ñii dañuy bi ñuy màgg dañu gumba ñii def nañu ay xasaayit bàyyi fi ñu ngi koy ñoo nekk ci lu ñu neex waaye ñoom seen jaan wàcc na yéen leen yàlla fay yéen yàlla fay loolu daa ci gàttal mooy mooy mooy mooy mooy ziyaara bi ñu koy ñu ci ñu ci sant yàlla bu baax mi nga xam yàlla ndax nun wax dëgg yàlla su nekkoon dafa nekkoon benn ziyaara boo xam ne du ziyaar bi du yàlla xam na ni ah waxuñu duñ ci dem de waaye duñ ci sawar de ndax ñu lépp loo xam ne du la ilaha lépp loo xam ne du yàlla neen rek pour ñun affaire tapp tapp tappal la rek ah, naxante rek la si mais <laughs> ni kuy jaay gerte caaf rek yenn saa yi mu du jar soo neexee nga nga dóor ci ba gàtt waaye loo xam ne yàlla neen la nag moo jar yëngatu loolu loolu rek la daay daay ñu ngi ñaan yàlla itam xam nañ itam kër sëriñ sab loolu la ñu nekkee mais gën a damay gën a ñaan suñu mbokku sëriñ si ñoom ñu gën a insister ci tawxid Sénégal yi ñu fexe ba Sénégal yi am tawxid ragal yàlla jox yàlla cëram xam ne mooy huwa allah huwa allahu la ilaha illa huwa yàlla moom rek la keneen du moom soo ko joxee cëram li ci des sax nga jox Seydina Muhammad cëram jox sëriñ bi cëram waa de jaawale ñëw jël place sëriñ bi jox ko yàlla jël place yonent bi jox ko ko la neex sëñ Abba dafa naan wax benn benn image bu rafet dafa naan wax ni eh, boobu temps yooyu ñetti ñetti abdo moo xam xam nga yéen ñetti abdo yooyu ñetti abdo xam nga ñetti abdo yi da nga doon am tubay am turki teg ci eh, kii bu rafet mu ñu tuddee ko ñetti abdo defe naa moo daan Abdul Abdul Lahad Abdul Aziz ah, Abdul Qadir Jilaani waaw moom la ko moom la ko waaye daan wooyee ñetti ñetti abdo yooyu da sëñ bi ne am baax na lool su suñuy say si nga say suñuy dem ca eh, ca ca ñoom te ci mbooloo ma nga sa dem ci mbooloo ma ñu xool la xam ne yow mi nit nga sañse nga mu ni mu ni lu am solo la waaye am ñetti ñetti abdu yu rafet ñëpp génne ci ñëpp génne ci ëtt yow ngay ñëw yan yal na fekk nga bañ jaawale yére ya nag mais su la yàlla xëree nga ñàkk fay wala nga dox ba jël tubéy ji dégg nga ñëw ñëw jël xaftaan bi daf ko tubéy ngem boo ko dégg nga jël tu jël euh, turki bi teg sa kaw dënn jël tubéy ji teg sa bopp soo ngay na nga dof sooy génnee nit ñëpp dañuy xool ni dof baa ngoog et pourtant dofuloo danga jaawale moo tax jaawale baaxul mu ne gis nga ji li ko dof li ñu dafa dof dafa jaawale mi ngi mel ni nga ni julli nga ba noppi rek ñëw indi yolo yàlla teg ci suuf indi ñeneen teg ci kaw rang ay sale mais ñi am parti di naan da nga dof di naan da nga loolu nag dafa bari ci réew mi nag waaye jël yàlla teg foo xam ne sorewul jël nit teg ca kaw dafa dafa dafa yéeme moo tax yow jar nañu yéen ñi nga xam ne yéenay xale yi dégg nga ngeen taxaw ci yéen tam def ci seen waar gis nga islaam xaleel moo xale yi ñoo ko mas a taxawal di nga oustaz Seck ñun tubaab yi ñu ñu yàq xam nga notion jeunesse notion jeunesse soo demee ici ci tubaab yi fii di naan dem na ba dix huit ans dem na ba vingt ans Sénégal bi sax da nga ay mag ñu am trente ans daan naan di nuyoonte seen morom naan booy naan booy na nga def def ni ay xaleel lañu ñoom daal il faut nga am trente ans trente ñu ne ah maa ngi mag si naan nangam naa or islam moom dix sept ans dix huit ans mu kàlla foofu comme sabab soo xoolee ñi nga xam ñoo tax islam Ali ibn Abi Talib bi ma amee 9 ans la jël la jël la ji bi ma amee 15 ans 16 ans ci la commencé xeex Ousama kii ñu tuddee Ousama bi ñaan <laughs> Ousama Ben Laden turanoo bu mag moom moo doon moo doon chef d'état-major de l'armée musulmane 17 ans la amoon xam ne islam jeunes yi ñoo ko tas mais loolu mag mag lan mag lan la man mag mënul dara di toit bi la yow yàquñu nii voilà bala ngay nekk bala ngay nekk bala ngay bala ngay kile bala ngay majeur am am trente cinq ans soo xamee am trente cinq ans foo jëmoo te xanaa mbàggam nga trente cinq ans moo tax ngay ne ko am trente cinq ans léegi nag war naa ranger foo ranger jëm yow màggam nga di moo tax yéen ñi nga xam ne yéenay jeunes yi à l'âge de dix huit ans yéen nga xam ne ci seen mbagg la yàlla teg diine ji te bu leen xeeb dara nag seen kër yi seen xarit yi seen jabar yi seen fu ngeen demee neen fexe ba ba prêcher nii ñi xam kan mooy Allah fexe ba wéetal yàlla jox yàlla cër bañ ko bokkaale laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah nga teg ci sëriñ bi sëriñ bi itam na fekk muy sëriñ bu teg tànkam ci kaw shari'a xam nga sëriñ mooy koo xam ne dafa teg dafa teg ci dëgg xam nga yaa ayyuha alladina amanu atiu llah wa atiu rasul wa ulil amri minkum wa ulil amri waaw xam nga boobu oustaz xam na li moo bu baax suñu loolu dafa na ngeen topp baatu baatu topp law topp leen yàlla indiwaat ni na ngeen ci teg ngeen na ngeen topp sidna Muhammad ba noppi nag indi waaw waawul atfi mooy képp ku leen xiir ci topp ñaar yooyu le waaw at fi dañ ko topp waaw a at fi la waxoon ngeen topp leen de waxoon ñu topp sëriñ si de bi su toppee yonent bi yonent bi topp na yàlla topp leen sëriñ bi waaye sëriñ bi su fekkee dafa nekk ci lu neex di wootee daraja maa fi nekk kii ay woto yu rafet bu dee ko dimbale su amee xaalis ngeen may ko ne ngeen di yi leen di tagg te ngeen bàyyi tali ba mu wér <laughs> mais loolu la ataatu fi l maaruf ataatu yonent di sallallahu alayhi wa sallam dafa mas a benn moom fu fu mu mas a am xew dafay euh, dafay jël benn nit ni ko ni ko anta amir xool la xam nga bu kon njiit njiit yàgg na ci sharia yonent bi fu mu mas def benn délégation day un benn waay nii ne monsieur Tall yow laa dénk mbooloo mi yow Ndiaye yow laa dénk mbooloo Ibrahima yow laa dénk mbooloo mi léegi nag kii mooy ma mooy man lu mu leen wax ne ngeen ko def ku ko weddi weddi nga ma koo topp topp nga ma loolu laa def tout temps maaye benn bés nag bu am benn affaire bu am mu wuñ mbooloo mu bëri indi benn saxaabi ñu leen saxaabi bii laa leen booleel dem leen ngeen ànd ak moom lu mu leen leen ko def lu leen wax maa ko wax lu mu leen tere maa leen ko tere dem leen eh, gaañ ñu tàll mu ñaane la ñu dem ñu dem ba mu yàgg lool ñu dëpp di wàññeeku ba ci yoon yi xam naa waa ji moom tam bakkanam jàpp ko wala xëy dafa la doon seetlu rek mu wala jëm yam ñu toog mun leen daal est ce que leen ñu doon ci waxoon yéen a ngi ci ba tey ñu ni ko ñu ni ko wallahi sam'an wa taa nga dégg rek ak topp ndigal mu ne léegi dem leen ngeen dem leen ngeen taxani ñu taxan waxtu bu bare bare bare ñu xam lu xew sax mu leen taal leen allahu akbar gaa ñi taal taal bu ñëppat mu leen dem leen ngeen dugg ci dem leen ngeen dugg ci safara si <laughs> gaa ñi ni ko loo wax mu ne lu ma wax xaa dégg loolu Seydina Muhammad ne lu ma wax moo ko wax ndigal la ndigal dem leen ngeen dugg ci safara si li ma leen wax su ngeen ko defu rek di ngeen wax Seydina dem toog jaaxle ñu nañu xool suñu biir ba xam lan lan moo xew waa ji dafa dof gaa yi ne dafa doon ci doful de li wonti mu li ko yonti bi waxul appliqué nañ seen niñ koy defaree ñu ne waa lan mooy lan mooy pexe gi nga ne moo gën a yeewu ci ñoom mu leen daal rek moo mën am leen dem yéen ñu tiinu ko ndax mu sarax ñu rek ñu dellu si waat ñu ko dañ ba nga dimbali ñun borom njaboot lañ kii ni ko man am na doom kii ni ko jabar am laa jabar kii ni ko barki ne mu laa am ja mu leen tee safara si rek ndigal la ñi dem ci seen biir nii léegi ni ñuy def léegi mooy nañu nangu ndigal li waaye ku ku daw bëgg a dugg rek ne la sa morom jàpp <laughs> ku bëgg daw rek ne la kenn jàpp ñi la doon dem keneen daw ñu ni jà ñi jàppante rek di jàppante ku daw ñu jàpp la ku daw di def des ku daw fenn ak waa ñëw jàpp ko xëcc di ko doon dugg ba mu yàgg waa ji daal di ne waa léegi nag doy na jéggal naa leen eh yaa dañoo gërëm ko alhamdulilah dem sant yàlla di nañ sant sant yàlla bi ñu toogee ba ñibbi ñibbi Madina ñoom Seydina Muhammad waaye ñëw ànd ak ñoom ñu leen wax ko ni ko li mu yónnee woon nii lañ ko doxalee tabaarakallaahu bi ñu bëgg nag benn waay benn waay xam naa waa si gaañ xam nga gaañ fam ñoo xam ni c'est des ay tet benn waaye ni ah yaa rasulallah am na lu fa am na lu xewoon ci yoon wi de nga baal ma est-ce mën naa la ko nett li yoon tamit ni ko ah kañ mu ne ko ñu de bi ñu dee bay dëpp ngoor si ñu boole loon te wax nañ ko topp buñ ko muy benn yoon am na lu mu def defloo de mu ne lan la mu ne def ñu tàlloo safara ba mu tàgg mun nañ ci dugg yaa di yaa di waxoon yaa di waxoon ni lu neen ko def moo tax góorgóorlu nañu di kër kër ba mu yërëm ñu yonent bi ñu leen loo wax waxaat ko mu répété waat yéen ñu ne ko cey su ngeen ko duggoon safara ala ala alaxira ngeen di fege ji ndax su ma leen nee nee ko topp waxuma leen ngeen topp ko ci bakkanam mm-hmm. dama ne nee nga topp ci kitaab wa sunna nee nga topp ci loo xam ni yàlla ko ak yonante bi wala ngeen topp ko ci lu mën a nekk waaye dugal ci safara si kooku bokk ci di <laughs> ci la ñuy jógee attaatu fi lmaaruf wa moo tax ñu ne ata attaatu attaatu fi xayrillahi fi taatillahi taatun lillahi koo xam ni da nga ko topp mu nit te fekk li nga ko topp yàlla neen la yéen ñaar yéen a ngi àndi topp yàlla mooy mm-hmm. mooy mooy rôlu sëriñ nañ ko fi bàyyi ci la bokk waaye sëñ bi aussi bu mu nekk di woote ni ñu leen maa fi nekk maa yàlla yéen ay ay ay ay baadoo la ngeen dama leen war a yëlif ko kooku nag bokk ci moom tam li ci bokk mooy sëñ bi <laughs> daa leen nettali beneen histoire benn góor gu baax dafa naan wax nii dafa naan wax nii sëriñ ak taalibe li ñuy war a mel mi ngi mel ni xottu almet ak ak ak bantu almet xam nga xottu almet xam nga xottu almet dafay am poson ci kaw bantu almet ci biir ay bant la mais day am ñoom ñaar ñoom ñaar am nañu solo parce que ñoom ñaar dañu war a ànd pour pour pour tàkk-tàkk mën a am waaye góor gi nag mu ni waaw ba euh, xotti bi mooy sëriñ bi sëriñ bi li muy woote ni am na yàlla na fekk ni yàlla boobu ma nga ca te mooy mooy mooy bi parce que xotti bu amul posan ba njëriñ la am mu ni bant ci biir aussi aussi moom tam di woote taaliba ne fekk moom tam mu am posan mu ni xotti bu am posan ak bant bu am posan soo xosee mu takk waaye ne su fekkee ne xotti bi dafa am posan te mooy sëriñ bi mooy yàllaa nga ci moom taaliba bi ñëw nekk mel na waaye boo xam comme li xew léegi ñëw rek pour doxal affaire ci sëriñ bi ne di jonju rek nee na su yàggee batt ba dana dem xottu ba yàqu mu yàq kër su bari nag gars yi di ñëw fees deli ci biir nag mara di te soo te ña ngay toj ña ngay ña ngay toj kat ña ngay toj uh, pied kër ga mu su fekkee ni aussi xott ba aussi amul dara ñu mel ni sëñ bi woote yàlla te dara nekku fa bant moom tam ñëw di joju saaga de bant ma day dam si nga wax ji nu mu soree moo tax euh, wàllu yàlla dafa war a mat sëñ bi dafa war nekk sëñ bu mat boo xam ne yàllaa ko ñor taalibe bi yàllaa ko ñor ñu ànd am yàlla maa ngi leen di gërëm <laughs> da ngeen ma da dugal ci waxtaan bi sax prévoir ma ko woon dama kontaan dama kontaan yéen gis ba sama jarbaat bi ñëw fi kii sama jarbaat la doomu soxna Xadijatu Si bu sëñ Babacar Si ak Zeynabu Jaañ ñoom ndeysaan yow maa ngi la ciy gërëm sax jëmmi nga ñëw indaale leen ci kër gi fii ma gis leen kooku sant yàlla bu rëy la moom maa soxna xar yaay ñoo yaroo ñoo Richard ak sunu ay nijaay moom Ila Diagne ak uh, Isaaxa <laughs> ak ak kii Cheikh Tidiane Cheikh Cheikh dana moo gaañu hmm. ak nijaay du Diagne bi gaañu Ahmed su nijaay ma topp la nekkoon sama am xadis si si boobu fa daan kon boog yàlla maa ngi leen di gërëm di leen sant yal na yàlla nangu yal na nangu xadra bi ñi ñaan itam nga ñëw ku ci mën lu ñëw itam suñu demee ñun li ñu fa ñaare yal nañu ko yàlla boole. waaw ci ay ñu fa def dara lu ay dog dañu fa def euh, téeméeri junni qul wallahu ahad téeméeri junni qul wallahu ahad waaw yenn saa yi dafa am xawiyu inna anzalnahu am xawiyu salaatul fatihi ñun ngay dañuy di mel ni ñuy xaru rek maanaam day tali ñu ngay di naan comme ñeenti fan yi daal dañuy fexe lu ñu mën ci kër kër yi ñu jëm ko def rek. weeru teeru lay yéene lu mu def ci eh, ci latif mu dem ngi mu ne ma mu ne ma def na juróom-ñaari chef tawir juróom-ñaari chef tawir juróom-ñaari chef tawir alhamdulilah <laughs> non non yaay baax na kii <laughs> xéewalu yàlla la rek man damay wax ni damay wax ne Sénégal li ñuy tuddee li ñuy tuddee xéewal xam nga Sénégal dama mas dem benn Italie ci suñu mbokku kii eh, mbokku Maodo Maodo yi ku ci téléphoné rek sax am ñoom allo allo mooy ñoom du ñu wax allo allo de dañu naan xéewal keneen ki di nga xéewal yow xéewal la yow affaire bi yéem ma lool xéewal xéewal mu ñu wax yéen seen xéewal yi baren di dégg nga bi ñëwee di waxtaan mën leen kaa jolle xam ngeen yéen di wax ni yéen du xéewal de ñun ma sëñ bi lan la kon ñun ñu man leen affaire yi dañ ko jaawale xéewlu la xéewlu xam nga xéewlu mooy yëre bu rafet nga koy sol mais ëllëg day mab day day ràppali ñu la ñu tegal la boole ganaar ganaar nga ngay lekk mais ba lay ëllëg mu mel ni mosul ak ganaar jax na di waaw million bi sax soo koy jaay par ndànk daal day moom yàgg ana kan moo fi mën denc million téeméer ba te nga koy jaay donc ay xew lu la xeewlu la ji kër yi xeewlu la yow bi sa bopp sax si yaram bi ngay dundee sax xeewlu ko day dem ba day dem ba jeex day mujj dem ba dem ci suuf sax yi lekk ko ay xeewlu la kër gi xeewlu la parce que day dem kër gi day màgg màbb wala soo màbbul yow nga màbb lekk bi reer bi reer bi ñu reer tey nii ba ñaari fan day mel ni mosuloo reer ana reer yi ñu reeroon démb ana añu démb yi ana ndekki démb yi yooyu ay xewlu la ah mun ma simi yokkut yi mel ni li nga li nga la de xool moo ca kaw ma ne ah mooy dëgg de ma ne ko waaye xewlu na ci la bokk waaye xewal dëgg-dëgg nag mooy yomal xiyaamati mooy àjjana ma ne ko xewal moo tax benn waaye nee na jàmm bala bala ngay am jàmm mooy jéego bi nga jëkk jéego ci biir àjjana mu ni foofu la jàmm ak yàmm commencé nee na jéego bi nga jëkk teg sa tànk ñi la mu ni voilà xéewal commencé mu jàmm commencé mais fekk tegoogoo ko mu ni si nga xam ni dara soteegul te wax na dëgg xéewal dëgg-dëgg mooy julli juróom mooy ragal yàlla mooy jàng alquran mooy wax yu rafet foo ko defee rek xéewal la parce que ngay dañu xéewal mooy loo xam ni du dem bàyyi la doo bàyyi mais kooku mooy xéewal loo xam ni du jeex mukk dafay ànd ak yow ba faaw tey ëllëg ba bàmmeel yawmal qiyaamati ñu ne mooy xéewal mais loo xam ne soo nekkee moom tey soo ëllëgee mu bàyyi la wala su la bàyyi yow nga bàyyi ko parce que su dee milliards aussi du jeex yow da ngay xëy suba jeex bàyyi ko fi ngeen teqale ko ba faaw nag kon moom loolu ay xewlu la lu jar a xel la man ziare ngi mi nag man ci xéewal yi laa ko boole waaw ci xéewal yi man man dama am sax benn benn faiblesse man bugguma sax ñu ne man maay di maay maay dirige ziare ngi ma nun ñoo koy dirige parce que man su ma demee ziare ngi su ma xasee dugg ci ne ba toog ba tal sama li ma jëkk a wax alhamdulilah rabbil alamin yàlla sutural lu ma may daw ba dugg fi dugg si fi tey jii toog xam ni mën naa fi zikkar du ma gis dara du ma déglu télévision ñeenti fan sant yàlla sant yàlla wallahi xeewal la di ay xeewal la waaw loolu rek la xeewal itam bare na nitu yàlla yaa ngi fi fees del di leen di dem ci nitu yàlla di leen seeti di nga xam dañ leen dañ wax lu rafet te mu nekk yàlla na ñi leen di seeti fexee suñ suñ leen gis ñu leen di wuti jar na ñoo nañoo wuti nag parce que affaire yi parce que gis nga wax benn benn soo benn xarit la ma en France bu yeewu ceddo la sax ba cedd yi dañu ñaw mun ma simi yëgaloo nii ñin mën na wax benn wax du ko xam yow yow nga jóge ci defaru ba faw mu ne benn waay mën nga ànd nit ku yeew bu wax benn wax man naa waa ji yeewul sax mais da rëcc wax benn mu rëcc la yow nga dégg ko jaar ci dem ba faw nga xam ni kon maa ngi koy nekk barki dee ba xool la yonti yàlla yonti yàlla Moussa yonent la yonent bu bu wóor a ci bi bokkoon ci eh, eh, ci ci yonent yi gën a mag bi mu nekkee ci jamono yeewu loolu am xam-xam loolu ba noppi nag euh, dem ba nit ñi wax woon ko ni ko yaaraw ci àddina bi mu am benn bés benn waa ñu ne ko dafa nànk di am na ku ñu wax xudar ma nga fale ci euh, euh, majmal bahrayni kooku moo moo moo ci àddina bi kooku de soo ko see Moussa ko ko dinaa ko seet waaw waaye nag tegtal yi mooy fan la nekk ci majmal bahrayni alors ñi am ñi ni ko soo fa demee nag daa am loo fa fàtte da am loo fàtte ci place Moussa Diop ànd ak ànd ak kii ak ànd ak euh, bi ñu toggal ko benn jën bu rab bu baax mu def ko ci mbaal bi pour su xiifee mën lekk ñu dem ba ñu dem ba sonn ñëw ci benn tefas toog fa di noppal nekk foofa la xamu ci woon dara mooy maj maj ma xam Bahrayn mooy place góor ga mais góor ga nekk fa woon nag léegi bi ñu noppali ko ba noppali ko Moussa ni que dañ jóg ñi dem man il faut ma gis góor gi xale bi jóg topp Moussa ndekk xale ba mi dem fàtte na fa fàtte na fa kii ba waaw euh, non non asetu ah, kii ba ah, euh, lakk kii ba bool ba nga xam ne ci la ci yóbbal ba nekkoon fas na fa yóbbal ba ñu dema dema dema dem ba sonn ba sore lool Moussa ni ko léegi nañ noppalu fii nag bi Moussa noppaloo ba noppalu bi mu ne indil indi yóbbal bi ñu ñu barkeel xale bi ni ay am na de yóbbal fàtte naa ko ca fa ñu toogoon mu ne ko kon boog foofa la foofu lañ ma doon wax <laughs> dégg nga dégg la mbiri affaire daal di ni nan daw ngaa place baa bi mu ñëwee fekk benn góor gu sol yëre yu ñàkk fayda def ni bopp bi lemu di di xam ni dafa naan toog ci tefas gi gaal yi foofu yoo xam nañ ko ñu nekk foofu ku ñëw da di ko naan ñii di ko sànni ay dërëm yi ay mburu ndekete mooy waaja de ah <laughs> fa wajada abdan min ibadina ateenaahu rahma nekke mi ngi bokk ci nitu yu rëy rëy bi Moussa ñëwee xool ni waa man dama la soxla góor gi ni ko lan la wala lan la mu ne ko doon bëgg nga nga jàpp nga jàppale mu ne ko ci lan mu ni ko nga xamal ma la xamal mu ni ko ku xam naa ko ku la naa dara eh, Moussa di xam nga dara waaye am naa ji xam-xam léegi Moussa ni ko léegi dama la bëgg topp hal attabi'uka noonu la Oustaz hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ma ullimta rushda dama la bëgg topp dama la bëgg topp nañ bàyyi xel ci topp dama la bëgg topp pour nga jàngal ma lii la xamal foofu la topp jógee mm-hmm. foofu la topp sëriñ jógee di sëriñ da koy topp mu jàngal la li mu xam rek topp rek la da ko yàgg na fekk ku baax nga ànd ak moom topp ko mu jàngal la nga dem sa waxoon nag wax nga jàppe ko yàlla déedéet déedéet doo yàlla maa ngi dégg suñu abbas mu nee na balqiis nee euh, bi que euh, bi mu kilee bi ngeen ci yàlla Suleymaan woowee balqiis bu amoon doole jigéen ju am buur la woon bu am doole ki ci place am doole xëy suba rek Moussa woolu ko balxiis bañ moom yàgg am ngaa yónni ko defal nànk ne ci borom doole la di ci wóorul comme que woon na la Balkis def na lu nekk sa yëm da ko corrompre sa yónni ay xaalis ay jama Moussa ni ko Souleymane ni ko Souleymane ni ko loolu man ça ne m'intéresse pas léegi Balkis ànd ak mbooloo mi ne nañ dem nañ leen dem monsieur Souleymane Balkis bi mu ñëwee Souleymane woon ko kéemtaal yoo xam ni nee na Balkis ne bi may dugg ci kër gi dama sama tànk dem noonu ji sax muy reflété ci karo yi marbre xam nga marbre wut na marbre yi léegi Balkis yéemu te Moussa daf ko bëggoon jommal Souleymane daf ko bëggoon jommal léegi bi ñëwee euh, ci sëñ Abbas moo ko wax de nee ba toog xam nga su euh, su su juuma dafa naa koy jox daal sama bopp léegi yow loo bëgg a donc dafa dégg wa aslamtu maa Suleymaan lillahi rabbil alamin ah ñu ni kon boobu ñu ni kon Balqis moom gàjje na Suleymaan dafa ni kon moom bu ñu léegi Suleymaan xam ne li fi xew ñëw ñëwal man ak yow ñu ànd ñu jabalu ci Allah waaw du ma ci yow de ni rek nga moo tax mu ne wa aslamtu maa Suleymaan jébbalu naa man man Balqis ba a Souleymane ànd ak Souleymane lillahi rabbil alamin xoola xoolal boobu mhm. te lu ko alquran la mooy yàlla mooy borom mbir yi waay mhm. maa leen gërëm di leen sant salaamaaleykum wa rahmatullah bi du ñëw ziyaara rang di ziyaara sëriñ dafa nekk ñeent fan yoo xam ne dañuy daw làqu dëdd àdduna dëdd seytaane ngir dem joxe li suñu borom bi wax irji'i ila rabbika euh, gis nga bi ñu fa demee ay dog lañ fay def ñu xool turu yàlla yi gën a màgg bii di laa ilaha illa allah xasbunallah wa ni'mal wakil ay dog ina anzalnaahu def ci ay junni junni junni ba pare jël saar bu tudd ixlaas dinañ ci def incha allah bi cent mille mi téeméeri junni te kooku mbir mu doy waar la kon nag ñu xam ni foofu demuñu fa ngir ja benn sëriñ waaye damuy daw daw làqu ji ngir taataan ak leer ak yiw bu nu mën a yóbbu ëllëg yow xiyam ziyaara bi nag alxames lay commencé alxames bu commencé. julli gu nekk dana am dokk yu ñuy def gannaaw julli googu buñ jullee timis da pare wasifa sëriñ bi soo ko waxtaan ci thème bi nga xam ne mooy thème alxames bi mooy le retour à la foi et à la piété bu defee noonu ajuma ji gannaaw julli juróom bu nekk ñu def dog yi fekk ñee jàng kaamil yi ñoom ñu ngi jàng du dañ ndax dajale na soixante daara te dongo bu nekk da nga jàng sa jukki vingt fois par jour kon mu nekk lim bu takku bu nu jullee jumaa pare def xadratu jumaa sëriñ bi soog a waxtaane l'islam religion de l'humanité cest dire nan la nekk religion parfet pour doomu aadama yëpp nan la amee humanisme euh, samedi bi tamit macha allah bu nu jullee julli gu nekk dafa dog yi sëriñ bi waxtaanaat encore ci le retour à la piété c'est-à-dire nan la doomu aadama war a fexe ba delluwaat ci gëm yàlla mais li nga xam ne nag moo koy tëj muy dimanche bi bu ñu paree ñu daw dem ci armeel ya fekk sunu maam ñu tëdd xam ne ñoom léegi ñu nga barsax ñu tiim leen jàng xatmu kaamil bi sëriñ bi waxtaan fa ci at taqwa mooy lan ngir mu clôturer les quatre jours de prière une heure am foofu incha allah bu ñu paree ci loolu am na ay don d'habillement don de vivre yu fay am euh, am na aussi poste de santé yu fa am ak euh, consultation médicale gratuite yëpp mu nekk ay action sociale yoo xam ni yuy accompagner ziara bi la incha rabbi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu